aus billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irahmaan irahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen siyaara bu baax a baax a baax di ñaan sunu boroom mu nangul ñu jëf yi euh, laqal ñu ko fu yàq yëgul jahi qadimi rasul sallallahu alayhi wa sallam bi jahi Cheikh Saalih Mbacké eh, ngi leen di nuyu waaye di leen jotal kàddu yoo xam ni imaam moo waroon a taxaw fii jotal ko eh, xëy na nekk ci ndigal ak ay yëngu eh, ba tax nu wutu ko ci xëy na dana diis lool ci nu wutu ko ci waaye mën nañ ko cee wutu ci geneen wu fànn mooy pas-pas yi ak bëgg-bëgg yi benn la yëg-yëg yi it benn la di ñaan Cheikh Saalih Mbacké tawféex gi mu nu defal euh, sunu boroom fay ko ko ca malawul ax ahla njabootam gi mu fi bàyyi te sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké nekk ca bopp ba sunu boroom dëgëral ko ndax kàddu gi ñuy jàllale mën nañu moom Cheikh Ahmadou moomee kàddoo ma ndax gox bi ñu nekk da koo ñor lool di fàttali rek ne Cheikh Saalihu Mbakke quartier bii bokk na ci mën nañu ne sax moom la mujj a samp muy Touba Njaareem nga xam ne boole na ñaari sirru yi nga xam ne moo am ci liggéeyub sëriñ tuubaa muy ak nekkam Touba ak yéenee nekkam njaareem walla ak nekkam Touba ak nekkam njaareem quartier bi na yor ñaari mbóot yëpp muy Touba njaareem waaye nag mu mel ni jamono bi laaj na lool ñu am ay model ak royukaay waaye ñun buñ ko soxlaa daa mel ne diir bu gàtt rek bu nu geesoo daal di koy gis te mooy suñu royukaay bu njëkk mooy Seex Saalihu Mbakke moom mi nga xam ne lépp lu sëriñ tuuba yéene woon mottali na ko ci yar ak jàngale muy métier mi nga xam ne moo ko fi woon def ci lu kawe njort bàyyi fi njabootam gi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ñun ñëpp ñoo bokk gis taxawaayam tànk ba gàtt na lool te jéego yi gudd lool loolu kenn nattable wu ko bu ma nee tànk ba gàtt na mooy du foo jóg gis ko waaye jéego ba gudd na ndax foo làmb daj mbiram jëfam lu mu def ak lu mu defar noonee it la aw làmmiñam gàtt lool waaye kàddoom sori lool kàdd gu sori mooy lan mooy lañ waroon a wax dafa noppi jëf ko ñu koy làmb di ko daj di ko xool di ko gis sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou loolu ma ci tudd moo ci gën a gàtt ndax koo wax ci taalibe xam nañ ne moom liggéey ak jaamu yàlla rek moo ko ñor ak santaane yit ay taalibeem ci ñu sax ci njub akuk mbaax te mbokk yi jamono bii ñu toll damaa wax ne jikko yii mu yore moom dong moo mën a defar àdduna bi mooy ne muut tey liggéey moom day daa noppi ne cell ànd ak di liggéey liggéey boo xam ne kawe na njortul ay association wala état wala lu mën a doon lii muy liggéey ci diine kawe na loolu ñu koy ñaanal suñu boroom mu yàggal ko fi ba mottali yéeneem yépp waaye nag mat na ñu wax ko waa gox bii di Touba Njarim ndax day gox bu ko ñor moom Seex Ahmadou Mbakke day gox bu ko ñor ñi nga xam ne njabo Serigne Saliou njaboote la xam nañ loolu kon nag liggéeyam bu rëy bii war nañoo fàttaliwaat ne ñun am nañ ci taxawaayit te mooy lépp li muy digle tamooy ak njub ñu sax ci dakk lépp lu muy tere tamooy ab safaan ñu bañ caa ñu bañ ñu caa séen waaye it ñu ciy jële ku ci nekk ku ñu gis ne kii kat cib safaan la ne nañ ko ci jële loole moom lañ mën a liggéeyal sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu ci gox bii su ko defee it bokk it ci liñ koy jàppalee mooy ñu jàppale daara yi ñu jàppale daara yi yar suñu njaboot yi jàngal leen diine mbokk yi kàddu gii may wax mën naa ne kàddooma ndax li ko ñor mooy ñuy yar doomi jullit yi ci diine yar leen ci nangoo liggéey yar leen ci ñàkk aju ci kenn li ñuy tudd yàccaaral ku ne xam na ne moom toogut di xaar addiye juñ koy jox toogut di xaar euh, mbooloo mu daje man koo jàppale waaye la mu nekk da caa nekk rek ku ko ca fekk yéene liggéeyal sëriñ Touba mu ànd ak yow ku dem bàyyi ko ci muy liggéeyal sëriñ Touba kon nag sax googu mu sax ak njub googu mu jub nañ ko ci roy ndax royukaay jot na ci jamono bii ñu toll bi ci desit ñu delluwaat ci yàlla mbokk yi nañ leen delluwaat ci yàlla wopp jii fi nekk tey feeñal na ci réew mi ñaari jikko yoo xam ne buñ ko gaawul saafara fa mu jëm ak ñun du jub mooy feeñal na ak njubadi waaye feeñal na it ak yaafus bu fekkee ñi ngi liggéey it li ñuy liggéey doyut wala ni ñuy liggéeyee baaxut kon wopp ji war na ne war na noo jubbantikuwaat su ma nee ni ñuy liggéeyee baaxut sëriñ tuubaa daa waxoon ne nañuy boole liggéey ak bañ a yàq te mbokk yi xew yii mi ngi ñuy yàqal lu baree baree baree baree bari mi ngi ñuy yàqal lu bari ñu bari ñu ngi dugg ci luñ mënut nga xam ne bu ñu génnee ci xew yi la leen cay dabaat kenn xamul nu mu mel te loola lépp ñu yóbbee ko seen bopp te war nañoo yëg ne bu boobaa ciru bakkan dugg na. loolu mooy liggéeyin wu baaxut liggéeyin wu baaxut mooy liggéey ba noppi yàq boo liggéeyee ci ay weer ñëw yàq ko ci benn fan mbokk yi loolu sëriñ Touba da ko mas di delloo gannaaw kon nañ góorlu ba li ñuy liggéey yàq bañ ciy dugg dama wax ne alali taalibe moom ñett rekk la toppatoo ak njabootam dimbalu ku mu tane ak joxe àddiya su ci bëggee wut beneen ñeenteel rek yàq ngay bëgg a jib kon loolu war nañ cee góorlu bu baax su ma nee ñàkk jubal wopp ji feeñal na ko tey ñun réew mi xam nañ ne ba ci suñuy njiit ñi ngi dégg ay alal yuy laatu te la gën a yéeme ci alal yay laatu mooy ña néew doole nga xam ne wopp ji xaw na leen a jàpp ñoom lañ ca doon dimbali tey ci la wëlbët ci lañ loo alal yu baree baree baree bari aakimoo ko te ña koy aakimoo ñoom day ñoo gën a man ñoo gën a jekk ñoo gën a jag foofu nag bu fi am réew tollee nga xam ne ña tiim ñañ yërëmatuñ leen su boobaa yàlla daa waxoon ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama su ngeen tëralee yërmande ci ñi ci kaw suuf si ñi ci ki ci kaw asamaan si yërëm leen ki ci kaw asamaan si mooy kan yàlla lañ fay natt donte yàlla laa makaana la yàlla amul béréb waaye nag buñ nee ki ci kaw asamaan si yërëm leen yàlla lañ cay natt yërmande yàlla suñu bëggee mu wàcc ci noonu nañu yërëmante ci suñu biir nañu jàppalante ci suñu biir te nañu jub te jubal nañu jub te jubal réew mi soxla na lool lool waaye réew mi it soxla na ñun ñëpp ñu gendi ko suñu pas-pas ci sëriñ Touba ñu dëgëral ko ndax yàq gi bari na lool pas-pas yaa ngi tàmbali di yonjox léegi ku ku wërta am kàddu mooy yëkkati kàddoom biral ko ba mu bir te lam cey wax dara du ca rafet te jëme ko ci yoon wi loolu nag ñun ñoo war a am suñu fullay bopp ñun taalibe yi xam nan lañuy ñuy fegoo yoon wi ndax sëriñ bi kat daa liggéey bàyyi fi njabootam ñu topp ci ñoom waaye xéewal gi mën naa ne sax ñoo ci ëppale njabootam xéewal gi sëriñ Tuubaa liggéey ñun ñëpp dañ ciy jariñ waxtu wu ne xéewal nag soo ci nekkee bu la wëree wet gu nekk danga nga dut yëg bànneex ba waaye bala ngaa xam bànneexu xéewal ñàkk xéewal ba noppi kon nañ fexe ba lii ñu am muy sëriñ Touba ñu téye ko téye ko ci pas-pas téye ko ci yar suñuy doom jàngal leen mbindam sëriñ bi xamal leen it lan mooy ak taalube toqi leen ba kenn du leen këf ndax caaxaan yi ak dunde bakkan yi bari na lool yóbbe nañu foo xam ne tey bari nañu bari ñu bëgg lu baax bëgg fu ñu def lu baax waaye li ñuy jàkkaar lool moo leen doyut mbokk yi nañ fexe ba buñ bëggee yaatalal sëriñ bi yoonam wii nañ ko yaatal ci suñuy jëmm mooy lan mooy nanu mel mel melokaan woo xam ne képp ku lu baax ñor boo ne ñoo jàkk bëgg a doon taalube loolee mooy li soxla ndax li may faral di leeral rek daa am mbokk mu ma laaj ne ma lan mooy ak taalube taarif ma ko ma ne ko taalube mooy jullit bu mat ba motti rek jullit bu mbankiwu dara daal mooy ak taalube jërut guddal jërut gàttal boo demee ci julli di xool melokaan ya ca yëpp ba mat ba motti taalube ngoog lépp lu lislaam foñ mbaa mu koy tere bépp taalube buñ ca séen yëgal ne nekkatoo ci ak taalube taalube mooy lan mooy lislaam ju sell yu sëriñ Tuubaa wax leer na banaytu taatiya bittibaahi bi zikri wal xadiisi wal ijmaahi nee na sama yoon wii maa ngi ko tabaxe ci topp alquran ak sunna ak la boroom xam-xam yi dëppoo waxet ne it wal yaalaman kulla zakiyin wal balit ann alladi yuxaalifu alxaqa tarit alxaqu badu labdi bi tawxidi wal fiqhi wa tasawufi almajidi sëriñ tuubaa nee na dëgg mooy ngeen wéetal yàlla dëgg mooy nangoo jaamu yàlla dëgg mooy rafetal sa digganteeg sa boroom sa digganteeg sa moroom sa digganteeg sa bopp ci li ngay yëg nga rafetal ko mbokk yi kon ndinkaani Serigne Touba yi nga xam ne foofu la teg tànkam te loolu moo dik taalube nañu leen góor góorlu bu baax dellu ci waaye delloo ci sunu njaboot lii ñuy tuddee modernité wala lii ñuy tuddee luxe mi ngi nu yàqal lu baree baree baree bari lan mooy modernité nee nañ àdduna bi day soppeeku. adduna lu mu soppiku soppiku soppiku yàlla da cee def lu bëri lu ci wërta soppiku ku xàmmewul li war a soppiku li wërta soppiku rek njuumte dikkal na la jikko adduna du ko soppiku waane te mbokk yi gis nañ yàqu gi am ci suñu jamono bi fi ñu toll nii xool leen suñu seen télévisé yii ñuy seetaan tey xeeti théâtre yi ñu ciy seetaan ana lan lay jëmmal mi ñuy jëmmalal boroom ñaari tur yi di ko wane muy fés suñuy njaboot di ko seetaan yow waajur yi boo góorgóorloo ba soo ko seetaan it say doom a ngi koy seetaan ñu ñuy jëmmalal li ñuy tuddee réseau franc-maçonnique mu fés fang ci suñuy tele ñu koy dawal di wane la ñuy wane ak di wax di waxe ci seeni slogan suñuy gone di ko seetaan mbokk yi loolu kenn amul taxawaay ci xeex ko ku dul nun te damaa wax ne suñu njiiti réew war nañoo xoolaat bu baax ñan lañ jiite ndax ku jiite dëkk boo xamante ne njabootu sëriñ Touba ñoo fa daje ñoom ñëpp nekk ca ron ga war ngaa xam li nga leen di dégtal ak li nga leen di wan lan la te tey bu ñu delloo ci suñu média bii ñuy seetaan jaxasoo na lool fengale diine ak saboté diine ak favoriser nooni diine moom lañ fi gis su ko defee nag yooyu ñun ñëpp war nañ di ko yëg war nañoo fexe sax doonte taalube bu nekk góor góorgóorlu ci. télévision bu ñu mënul ne bàyyi lii ngay teglu bon lii war nañ ñun taalibe yi bu demee ba jot ñu fay suñu tele ca waxtu woowee ñu koy dawal ba mu jàll yéene ci liggéeyale ko Serigne Touba ndax bu ñu bàyyee rek muy daw ci suñuy tele ñun askan wii nga xam ne quatre vingt pour cent des musulmans ñoo ne ci réew mi ñu ne ñoo leen koy seetaanal ñoo yore visibilité bi mbokk yi nan leen xoolaat bu baax a baax a baax li ñuy def. nañ yar suñu njaboot nañu dugal suñu loxo ci li arrangé suñu bii a ah, ndax Serigne Touba ko fonk environnement la Serigne Touba dafa teeloon a dégg ne al al euh, al biatu wala boog al insaanu ibnu biatihi Serigne Touba daa teel a dégg ne doomu aadama bu mu mën a doon yaay doomi li la wër moo tax àll bu ne gor na ko xoolal Cheikh Saliou bi mu ñëwee di ko ci roy àll bu ne gor na ko ngir rawale ak njabootam yóbbu leen ci bërëb yoo xamante ne du ñu fa gis lu leen di yàq duñ ko fa dégg ngir mën leen a yar suñu demee nag ba ñun ñu am ngàntal mën a dem ci àll yoo yees ñu doon gor ci liggéey bu mel ne bii Seex wu doon def di yóbbu ak njaboot ci àll di leen rawale fexee def ci ñoom ay jikko yoo xamante ne bu ëllëgee su leen dellusee ci taax yi dañuy defare waaye duñ leen yàq comme loolu am na ngànt war nañoo jël nag léegi nag suñuy responsabilité bu ñu bëggee suñu murit sax mbokk yi lii ma wax nii mooy yéene sëriñ Seex moom sëriñ Saalihu Mbakke dara du mbigam damay wax ne li may faral di meral ci moom saa booy wër yàlla booy wër yàlla boo eggee ci moom danga nga fekk fa ko doon yaakaare mu tiim koy wéy waaye sooy wër àddina it soo eggee ci moom danga fekk fa nga ko doon fooge mu ne ca ron gaa ron ga ndax bu doon ligs lépp daje na fi moom loolu mooy maqaamatu suudu dëgg-dëgg maqaamatu suudu dëgg mooy ligs yépp daje ci yow te fañ lay fekk buñ la fa fekkee yow yërëm la ca la ngay toggoo ci jaamu yàlla gu metti la ngay toggoo ci jàng alquran te fabbiwu la ci dara ci taxawu njabootu jullit yi ci àdduna bi waaye fabbiwu la ci dara it ci liggéeyal li fi samaam bàyyi woon kon liggéey bu mel noonu nag su ko taxawalee jot nañu yëkkati ñu nit suñuy kàddu ñun taalibe yi ne ci ron gi te xam lan mooy xéewal gi ñu fàttalente ci suñu biir ne njub ak rafetal loolee la sëriñ seex moom sëriñ saalihu bëgg ci noonu gox bii loolee la fi bëgg mu ngi sant yit nag waa gox bi waxtu wu nekk ndax lu tax jagoo gi ñu jagoo bërëb bii ndax bërëb bii kat ñun taalibe yi lañ ko fi defal waaye jagoo giñ ko jagoo di fi ñëwit wéyeful fa moom lu rëy rëy rëy fa moom ndax waxtu wu nekk ma koy bàyyi xel su ko defee it ñu góor góorgóorlu ci bu baax taxawu bërëb bi bu nu yam rek ci jullee ci dëpp waaye nañ def suñu lépp ngir liggéeyal sëriñ tuubaa ci lépp lu ñu jàpp ne lii kat ak mbëgg ak bëgg ma ndax li mu yanu diis na lool ku xam li mu yanu ci liggéeyal diine waa ju baax ak góor yàlla jaar na fi ba jàll te yéen wut lu toll noonu su ko defee nag ñun taalibe yi la ca war mooy ñu góorgóorlu ci jàppale ko la Serigne Modou Moustapha waxoon ñu def ko ci suñ bopp mooy jàppale ma ci sa bopp la waxoon taalibe ba jàppale ma ci sa bopp mooy lan mooy fexeel ba jub rek yow moom fexeel ba bu ñuy woote ci lu lu di safaar rek bu ñu la ci dégg booy jàppale sab sëriñ bëgg mu ñoŋ dangay fexe yow ba jub rek boo jubee rek noppalu su ko defee nag kàddu yii ma yékkati ci moom moo nekk tey jii ci suñu xalifatul am bii di sëriñ Basiiru liggéeyam bu rëy bii nga xamante ne moom la naal di ko liggéeyal Serigne Touba ñun ñëpp suñuy xel dal mu mel ne mag ña dañoo dellusiwaat damaa wax ne yoonu murit leer na naññ fi mu ne ci bopp leer na naññ dara lëndëmut dara jaxasoowut képp ku jaxasoo rek na nga yég ne lii jaxasoo ci sam xel la lënte waaye mbir yi moom leer na naññi jëmm yii ma wax muy sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu mii ma gis ku ne jàkk li muy def. ne jàkk sëriñ Muntaxa lii muy def yoonu murit dana leer nañ ñi ci yow amul leen loo naan naa dem gëstuju ko danga xam fan lañ tegloo tànk yi su ko defee ñun ñëpp ñu góor góorgóoru teg fa suñuy tànk te gàddu suñuy pas-pas di leen fàttali nag ci li may jeexale mooy sëriñ Touba dafa am pas-pas yu mu tënku woon te mu mel ne jaxasoo bi am na euh, sumuliye bi am na ubbi ubbi ko am na ci wàllu xam-xam ba ay ay école yu baree baree bari dugg si nañ ci réew mi te loolu alhamdulilah ñu ngi koy sant yàlla waaye nag école yooyu ñuy fàttali ne Serigne Touba leen gëstu woon bañ mat sëkk ba noppee mu xool ba ba ca gën a baax mu tànn ko te bu dee mashab maalikiya la nu tànn loo nan ko gëstu gëstuloo ko suñu njaboot a tege ji ca bu dee mu'taqadaat al ashariya la ñu tànn loo nañ ko gëstu gëstuloo ko suñu njaboot teg leen ca. bu dee ci wàllu yar tasawuf la tànn nañu gëstu tasawuf te teg ci suñu njaboot ñett yii nga xam ne ñooy lislaam muy liimaan liimaan kon nañ ko jële ji ca mu'taqadaat al ashariya lislaam nañ ko jële ji ca fiqhul malikiya waaye lixsaan nañ ko jële ji ca tasawuf sëriñ Tuubaa ci lii la nekkoon doonte nag ba mu jëlee tasawuf def na ci moom ci boppam liggéey boo xamante ne ñépp ko ko nangul ci àddina moom sëriñ Tuubaa mooy ubbi na ci ay baat yoo xamante ne baat la yu ne woon ci biir tasawuf te kenn xamutoon lu mu doon Serigne Touba moo ñëw jëmmal ko bañ xam lu mu doon ndax lan moom bi mu ñëwee ci tasawuf boo xoolee juróom benni ponk la teg ci ci kanamam mooy fexe leen ba jàng dañ ci réer ndax lëj-lëj bi am ci àddina bépp ñàkk a jàng dong nga ko waral moo waral ay nit mën a jóge fële di am fitu di propagandal ay làng ba bëgg fee jëmmal làng waxee dañ naan ku ko mënul bokkoo ma ne ña mënoon làng wa ñoo yàq réew ma ña mënoon làng wa ñoo yàq réew ma naka noonu ñàkk jàng moo tax tey nit am fitu jàkkaarloog ab jullit di ko di ko di ko éviter wala di ko woo ci loo xamante ne diineem nangu ko mu dem wuy ji mbokk yi ne Serigne Touba andi jàng bam noppee mu andi tarbiya yar def ci loo xamante ne kenn defu ko ci muy ñaareel bi bu ñetteel bi mu andi jaayante nit bu bëggee baax day am kilifa indi jaayante bu ñeenteel bi mu indi liggéey liggéey wetti saw ñaq gis nga liggéey sax baat biñ ko doon firee Serigne Touba daa ñëw andi terme boppam muy kas bul xalaali dem fàggu ji lu lew ndax moom jàpp na ne liggéey moom liggéey moom ci jaamu yàlla rek la nekk saa bu ñee xamal rek ca jaamu yàlla lay xaar waaye buñ nee nag li ci des muy kas bul xalaal mooy fàggu lu lew loo mën a jaamoo yàlla waaye bu juróomeel bi it mu fexe ba andi lu ñuy tuddee hadiya ngir cofeel mën a sax suñu diggante ñépp xam nañ ne hadiya yonent bi moo waxoon ne tahadu tahabu dee leen joxe ay hadiya ngir ak mbëggante am seen diggante te bëgg ci diggante dongaa ko sëriñ nag bëgg bëgg rek ci diggante nit ak la muy topp ñett yi rek la bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg sab sëriñ yàlla nag loo ko bëgg-bëgg mu bëgg la da koo gën ndax moom bu la bëggee moo lay wëlbati melal la na ko neex ci nga mucc yonent bi nag ngir nga mucc ci ma ngir nga ngir nga am xéewal danga koy bëgg mu bëgg la ñaar yëpp dafay daje mbaa doo ca mën a jariñu sëriñ bi nag li la ciy dimbali lu mu la bëgg-bëgg nga bëgg ko moo ko gën sëriñ bi lu mu la bëgg-bëgg yow nga bëgg sëriñ bi moo ci moo ko gën ndax mooy tax nga mën koo roy mooy tax nga mën a toppi ndigalam kon ñetti bëgg yii ci kii topp ak ki muy topp nañ ci bàyyi xel yàlla mu bëgg la mooy li gën waaye ab yonent nga bëgg ko mu bëgg laay li gën bëggante fay am waaye nag ab sëriñ moom yow nga bëgg ko mooy li ca gën nañu leen góorgóorlu ci yii bu baax a baax a baax sëriñ bi yarin wii mu andi nag benn laa ci bàyyi muy alxidma xidma muy liggéeyal yàlla ci jaam ñi te doo ci xaarok pay ku ne xam na ne sëriñ bi dundam gépp xidma la liggéeyal yàlla ci jaam ñi te doo ca xaar ak fay day feeñ ci mbindam yépp wa qiila in xadara yowmul baari wa duribi siraati fawqa naari wa kaabadal wara jawa wa xumma naada munaadi ayna ahlil xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain wa yumaruuna lil jinaani musrihin waaw sëriñ Tuubaa bu yowmal qiyaamee ba nit ñëpp jàq tiit nekk ci xat-xat jafe-jafe yi bari lool nee na malaayika ne bëri jóg daan ne ana ahlul xidma muy ña daan liggéey xidma defe naa xidma moom boo ko tuddee sa xel dem ci murit nee na bu boobaa nag fa ajaabu ajmain ñoom ñëpp jóg taxaw fa yumaruuna lil jinaani musrihin dañuy daal di digle na leen accu nañ daal nañ gaaw dem àjjana ñoom bu leen fi kenn xatal ma ngi koy gën a firi sax daan ne bi an yuqaalu lahu umdul janna min xayri mihnatin wa xayri fitna nee na yàlla danaan leen yéen dem leen àjjana gaaw tàbbi ji fa coono du leen ci fekk fitna du leen ci fekk kon nañ góorgóorlu ci xidma te buñ ci xeeb dara nam ko waxee woon ci xidma bul xeeb sax dogitu mburu woo yëkkati jox ko sa mbokkam jullit mbokk yi nañu liggéeyal Serigne Touba ci loo ci ci jaamam ñi euh, ci taalibeem yi nañu liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bi waaye nañu liggéeyal Serigne Touba ci jëf yi bu ko defee nag fi may tëjee nag mooy ñun ñëpp ñu xam ne sëriñ Seex moom sëriñ Saalix ci kaddu imam Saalixu Silla moom it xafisahu Allah yàlla na ko yàlla sàmm ndax li nu bàyyiloo bërëb yañ daan jullee ñëw fii. mooy dañoo gis muy ku sëriñ Saaliwu defaral boppam la war a ne ci moom lépp ne ci moom ci xam-xam ndax it dañ na dañ nañ ci réer nga xam naa ne diir bi nu jàng buñ ko génnee ci liñ am ci at kon doonoon nañ lu tuuti te mosuñ mosuñoo jóg ci njàng kon leenu dañ ci réer waaye ñu gis léppam jaxasoog moom lool sëriñ Touba ñor ko lool sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu ñor ko lool ni ko sëriñ Saaliwu ñore ndax ñoruk sëñ Saaliwu tax sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu ñor ko ba booy ànd ak sëriñ saalihu loo ko mën a def ci ay lor mën na ko yenu booy ànd ak sëriñ saalihu xàmmeetu soxlaam ci yow booy ànd ak sëriñ saalihu léppam sa euh, maanaam sa lépp léppama waaye boo bëggee safaanee li sëriñ bi tëral nag bis booba ngeen di safaan yow ak moom li tax ma mën a témoigner lii nag ci ñàkk ñàkkam fee nekk da ci am solo ndax it comme néewu fii yàlla moo fi ne te ñu ne li ñu jëlee ci gox ba ñuy jógee na muy soree ñu ñëw ba fii ñun ñëpp de ay taalibe sëriñ Touba lañ waaye moom dafa bokk ci ñi ràññiku ci dëkk bi ci xam-xam ak jubal ak bëgg lu baax ak fonk doomu aadama ak fonk ay sëriñam sëriñ seex moom Serigne Saliou mii looy waxtaan boo ko ci tuddee rek xolam sedd na moom imaam moomu nag moo joxe kàddu sant na waa gox bépp ci ni ñu jagoo béréb bi kàddu googu it ci kàddu Serigne seex moom sëriñ Saliou la ko jële mu ngi sant waa gox bi di leen soññ ci ñu ci ci ragal yàlla ak jaamu yàlla. waaye di rafetlu seen taxawaay waaye di sant it mbooleem ñiy saytu wàllu jàkka ji di ko dundal ci waxtu wu nekk ak ku mën a doon ak yéene jum ci am ba ci jigéen ñii bàyyi koo ci ay bërëb di ñëw di julli si ci bërëb bi ñëpp mi ngi leen di sant fa tabaarakallaa di sant ku mel ne al mudir mm, sëriñ ma kure caw moom it jottalil na ko jottalil na ko sant ndax taxawaayam bu rëy bi muy taxawee ci jiite lu ëpp ñetti téeméeri jàngalekat ci dëkk bi di leen toppatoo waaye yàqalu ko yenn yitte ci taxawu tuubaa Njaareem ngir xam gu mu xam ne Serigne Saliou daa bëggoon gox gi bi kon nag yàlla nañ ci yàlla defal tawféex euh, làq ñu fu yàq yëggul xajjil ñu mu si musibaak balaa gàtt fan ak deegu ñaaw musal ñu ci mbokk mu aayak xeetu aayak dëkkandoo ji aayak lépp lu aayak ayam njabootu Serigne Saliou giis suñu borom yàggal leen fi njabootu sëriñ Touba gépp sax laay wax yàlla na leen fi yàlla yàggal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou yàlla defal ko wér ba lii muy xuus sunu borom eggaleel ko ci fu wa ma saalika alallaahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu